affaire bu limay may njëkk a affaire bu louche la ci une nébuleuse lu ñu war a la ñaareel ba même bu fekkoon sax leer rafetul andul ak étigu jub jubal jubbanti. Mhm. du tout du tout la preuve mooy xoolal déjà affaire Cheikh Dieng bi rek warono def jurisprudence pour man lolu rek képp ko xam ne nek ni bëgg nga pouvoir bi responsabilité publique bi mu la jox ah. Mhm. nga jappalé len ci liggéey bu rafet war nga moytu mel def li def non seulement du yokk lu du confiance mais day indi ay tâches yoo xam pouvoir actuel bi soxla parce que tey ji boo jëlee oto boo dañ ne daf ko mhm. après euh, moom expliquer explication ne mhm. man man convaincre mhm. personnellement convaincre ma. <laughs> du tout ci affaire waa sama tour nii. bon sa tour pour nous faire ko il faut que nous demander sa autorisation. sa autorisation il faut nga sa carte d'identité voilà donc ça ne m'a pas du tout convaincu mais je ne veux pas l'accabler. Mhm. donc vous faites que nous noonu tax na ministre bi euh, ne ko ñun bëgg donc, il faut que donc donne raison contre raison ministre parce que l'affaire, même moom même nous ni l'air. défendre leerul. Mhm. kon le ministre doit ko def cadre bob, je suis d'accord avec lui parce que que directeur auto service nga yore mais du question am façon autre bopp. Mhm. léegi. Euh, légui lu mel non su amé pap Alé dégg lolu warna na laal affaire ay auto fi mu nekk nii hein? c'est presque la même chose parce que fi mu déjà ki ñu koy tuumaal né dafa bëggoon jël ci auto euh, ki partenaire wu ONAS xawma yenn. Mhm. cabinet yi yow tamit nga nekk directeur d'une agence publique man déjà dama dama ñaawlu déjà le fait que ku am ben agence publique comme Youssou Ndour ni mu nekk woon ministre ba pare yore son truc privé. Mhm. dama ko mos a parce que day indi conflit d'intérêt Pape Alé Niang fi mu nekk aussi le fait que mu nekk DG man loolu dénoncé dans sama page Facebook je crois euh, DG ba pare kon son agence privée Les léeg mu wax dara ñu non euh, ci Dakar matin la ko waxee léeg-léeg mu wax dara non Moi je dis que quand xam ne jox nañ la une direction une une agence publique tu dois euh, démissionner de la de de la direction d'une affaire privée nga jox ko le temps boo paree nga ñëwaat non mais amoon na moment yi nga xam ne nag na appel d'offre pour ñëpp ñi nga xam ne nag mën nañ fa ñëw ci Dakar ñëw liggéey mais nekk directeur bi laay wax. Mhm. non mooy nekk directeur bi ba tey. Euh, mhm. Non, non non loolu lay wax. parce que le chef la soxla woon ak yeneen yeneen. loolu voilà loolu mooy conflit d'intérêt bi. Mhm. du affaire u ñëw liggéey mais dama ne la nekk en position de directeur d'une agence en plus n'est pas une agence euh, simple hein, parce que information publique. c'est très sensible. en même temps nga yore une boîte privée. Euh, c'est un conflit d'intérêts. je me demande est-ce qu'en en Europe ak un pays démocratique qui accepter même nom N'y a ba euh, affaire pas affaire où euh, Pape y dama propagande qui est def ci Facebook bi patriote il est généreux etc non ce c'est pas aussi simple que ça c'est très dangereux Les patriote c'est dangereux au contraire ce n'est pas patriote parce que euh, position directeur bi en principe <clears throat> un agent public n'accepte pas des cadeaux et ce te information bu am solo nous supprimer ci li ma gis ñu propagande dans la des groupes de propagande vont mettre en place autour de cette affaire là mooy que Pape Alé a dit dans le journal Enquête que c'est mes amis qui m'ont offert ces voitures mes amis c'est extrêmement important qui sont ces amis là donc le ministre de la communication bi déroule temps et je suis d'accord avec ça hein, pour voir, on doit connaître l'identité des propriétaires des médias est-ce que le DG de la RTS moo am ay qui yu savent xamul yu koy jox ay dons xam voiture xam nañ ko jox wala wala foncier donc ça c'est pas patriotique du tout c'est très dangereux ça ouvre une porte parce que si demain aussi un ministre demain aussi un autre DG ku ci euh, immeuble samay ami ñoo ma ko offrir mais légui mayna état bi ñaari étage yi ci suuf mais 5 étages ci kaw maa ko moom keneen ni ki mala on va aller vers où lool motax tax mu dangereux mhm. moo tax en principe dans tous les pays démocratiques yi bëgg def bonne gouvernance ak jub jubal jubanti yaakaar naa foofu lañ bëggoon jëm mhm. mooy que ni da ngay sori yu mel nonu ba Alé Niang avant muy nekk DG kenn xamul ko fi won ben patrimoine légui nak euh nekk DG rek commencé dañ may nañ ma 6 auto may nañ ma li may nañ ma li kon nous ñu euh, il a donné ses propres voitures c'est pas ses propres voitures il a dit on m'a donné des voitures je les ai rétrocédées Si le woon RTS de yi euh, mais euh, may d'ailleurs hadith sallam qui ki demone ji azaka ne yonent bi azaka ma jox dañ ne ko mu mu ko sa dañ la mhm. ko conflit d'intérêt

yow mi nek directeur agence bi sax nga nan mayna agence bi nangam RTS lu mu soxla ay demande la war nek dafa ne une demande faite à l'État, état budgétisée et tout état bi war ko satisfaire su RTS su nek ni amul auto yu doy état bi la koy laaj. mais mom bu gisee ni état bi dafa am difficulté boobu non mais ñun est ce que gis nañ ko ñun. <laughs> voilà il devait communiquer sur loolu tam. mais justement. Hmm. mais justement justement. Moi, moi, li ma la wax xolal tay ji justement. Hmm. N'importe quel ministre et DG et PCA peut dire que l'immeuble est un peu comme ça. Je suis établi. Si je suis en train de faire un problème. Mm -hmm. Et bien, je suis en train de faire un problème. Je suis en train de faire un C'est des dizaines de millions. Auto bonek, ah, minibus déjà, déjà, je compter compté ay... 10 millions parce que auto indawi, nous, nous, nous 10 millions. Surtout. Voilà. Il y a une chose qui est multiplié 6, ça fait combien donc, Voilà, donc et, et dans l'anonymat xoolal le texte les mots wax que les agents publics n'acceptent pas ne sollicitent pas de cadeaux mën nga ko élargir jëla tey de domaine du ñoom ñooy dem di vérifier mhm. bu la neexee ñu dellu si daal ne ñaari qui yi directeur fi ma vérifier moo ma ko mhm. gis nga buntu bi ngay ubbi dañ leen koy tere <laughs> gis nga buntu bi ngay ubbi mhm. c'est très dangereux donc c'est très dangereux pour ku bëgg a jub jubal jubanti il faut surtout pas faire ça Tahirou sar Tahirou sar yu bari il disait dañ ma ko may voilà kon dañ ma ko may boobu euh, lu louche la te tam texte bi da koy tere. waroo sollicité mën a tëj corruption bi la daal voilà kon man fi ma gis ne ñu ngi koy jéem a actuellement. Mhm. mooy euh, le fait que moo wax samay xarit ñoo ma ko may te yow sa ñu ngi la may rek bi nga nekkee DG lu tax avant DG mayuñu la six oto yooyu. beneen affaire bi mooy que comme ni ma ko waxee Cheikh Dieng benn oto boobu moo ko indil problème kii am six oto kon moom tam ministre am war na ko ni lii lii ni mu demee. ñaareel ba comme ni ko waxe ñaareel ba kenn du mayante ni nit ak état nga nek yow sa bop état di mayat état papa Ba fi mu il est lui-même dans l'état léegi nga naan man na mayat état bi yoy c'est louche quoi. Mm-hmm. c'est louche et euh, ma ma ma jeexal aussi fenn moy que CNRI CNRI euh, commission de réflexion kii bobu laa bi Macky Sall mettroon en place. defoon mm-hmm. ko Makhtar Mbow. defoon nañu réflexion ci sujet bi article 10 il propose article 10 aucun agent public ne doit solliciter ni accepter un don ou cadeau ou nangam nangam hein, sauf pour des cadeaux offerts diplomatiquement mmh. qui doivent être déclarés et remis au patrimoine de l'État etc donc c'est extrêmement encadré par contre vraiment c'est très louche c'est une nébuleuse boo xam ne d'ailleurs même ñi nekkoon foofu ñii dañ doon wax ne euh, premier ministre moo ko jox oto yi ñi naan nii kon moo lay woon sax leerul même à leur niveau au niveau de la RTS même ci boppam ah ñii dañ doon wax ne non Ousmane Sonko moo jox oto yi même Ousmane Sonko sax mënu ko jox oto noonu. waaw parce que chaîne la dafa a jaar ba àgg ci moom. te même don yi gis nga tey ji par exemple boo nekkee benn société ngay defal état bi don c'est très encadré en plus xoolal dafay leer tey ji par exemple mën nga jox euh, à l'hôpital benn don gisoo ni ñu koy organiser. Mm-hmm. ministre bi mooy ñëw. réceptionné quoi, ñu def discours xam ni la ce jamais ay mes amis m'ont mes amis m'ont donné mes amis m'ont donné alors euh, je crois qu'il faut faire très très attention à ça sinon on va vers euh, après de de gros de gros problèmes des imam qui sont euh, li nga côté sécurité surtout mo am ben way bi nga lañ sniper Jérôme Bandiaki la tout. Jérôme Bandiaky boobu euh, turam daan nañ ko dégg ci ay problèmes yu bëri ci ay dossiers yu bëri surtout hmm. euh, xel dem na ci dossier Dambodj ndax euh, bi muy jógee ci IGFM di enregistré benn émission di ñibbi hmm. waxoon na ni dañ ko dóor balu fetal ci hmm. otom te moom dafa dawal ba mu dugg ci benn hôtel de la place nee na waa ñëw na ba dugg foofu noonu dem di dugg ci biir otom mais malheureusement pour moom caméra moom moo jot jël kanam bi te ci loolu nag lañ jéete fuyitee